salaamaaleykum wa rahmatulah euh, maa ngi gërëm presse bi seen teewaay mais di gërëm aussi euh, jeunes yi nekk fii maanaam collectif euh, di gërëm ku mel ni Cheikh Bara Ndiaye ñi nga xam ne jàpp na ci lutte bi ñun moom ci lañu ma sa nekk te ñun dañu féete ci citoyenneté lañu gën a féete que ci te ñun ñuy féete fii ci citoyenneté ñun ñooy bouclier wu

on n'a rien compris parce que ñoom tëbuñu tëb rek yëngalaat dossier nongo dossier pour le ko parce que nous avons même fait ñu ko depuis les mois de mars donc tey jii euh, euh, leader politique dañu génnee seen loxo ci ci parce que quand même ñoom ci am aussi ay militants yoo xam dañu kon mhm. mais nous, comme citoyens citoyenneté ñu toujours pour des positions de principe de liberté et de démocratie mbir mi ñaar dafa am Nous xam ne problème opinion la ak article pour les opposants politiques pour les opposants ñaari cas yooyu ñoo fi am premier cas bi ñu jàppee ay problème wax seen xalaat seen opinion muy Ousmane Diagne Papito Kara bu ñu def partagé ay poste Cheikh Omar Diagne ak Abdou Karim Gueye ñu wax seen xalaat ci deewu imam Alioune Badara seen opinion la ñuy wax constitution dafa ni ci article 8

te dëgg bu ñu dëgg dëgg mooy mooy yoonu yàlla dëgg ma loon yoon man yàgg xeex ak système bi nga xam ne seeni nit ñoo fi nekk ci nguur gi ñu ni kii lañ ci profito teg ko loxo Karim sax dañ ko ci laabal mais Ousmane Diagne naka la mën a jàppee ni sur des bases aussi légères benn post bu ñu partagé ba noppi di bàyyi ñoo xam ne ñu ngi sàcc suñu alal

pour acte ci euh, euh, yéegal ci acte terroriste ay délits yoo xam ne c'est lié à internet c'est lié au au à l'exercice des libertés. Hmm. ci base boobu la ñu mënee teg loxo ñoom Papito Kara léegi ñi nga xam ne dañ leen article 80, vingt wala dañ leen bëgg a article 80, vingt ay autorités politiques dañuy yóotu pour taxal leen kooku dafa leer donc loolu euh, Abdoulaye Wade bi mu ñëw ci pouvoir nous avons bu article 80 du code pénal parce que dañ koy contre les adversaires politiques mu ko a tenu la même promesse article 80 le film fi parce que euh, euh, mon da politique mu Kofi. Donc, fi donc pas le le débat ci justice la réforme ou la suppression de l'article 80, sur la base duquel nous avons topé nos frères actuellement en prison kon ñëpp ñi nga xam démocratie ak liberté ñor na leen pour ñu ànd ak suba incha allah euh, à partir de 15 heures place de l'Obélisque ñu def procession ba rond-point euh, BCAO pour fësal suñu opposition ci ni ñuy salfaañee liberté nit ñi ak àq ak yelleefu nit ñi may daane di gërëm aussi euh, les autorités politiques nga xam ne jàpp nañ ci manifestation bi